on est plus de vingt personnes plus de vingt plaignants donc ñun on a pris nos responsabilités pour taxawal ñi nga xam ni ñoo fi mënul taw dafa fekk ni comme on parle de collectif on peut pas parler de cas par cas isolé donc dañuy wax li nga xam ne globalement moom moom li am mooy nit ki ñu ko sekkal dafa yor société am doon référence ci dëkk bi nit ñi xam ko ñu am confiance ci moom commandé ci moom ay oto ñenn ñi dañu yëkkati seen xaalis commandé ci moom oto ñenn ñi dafa jël ci ñoom oto dem jaay ko delloowu leen seen xaalis globalement loolu la collectif bi nag nan la demee ñi nga xam ni dañu yor seeni oto yor seen parking indi seeni oto di ci liggéey soit ñu koy dugal en location wala ñu jël seen oto indi ko teg ko pour di ko jaay ñu ci bëri léser na leen parce que jël na seeni bien jaay ko wala mu am problème ak nit koo xam ni da ko jox xaalis pour mu jëndal ko oto mu lekk xaalis bi dem jël oto boo xam ne location lay nekk dem jox ko nit kooku pour mu noppi tuuti may ko temps wala may ko battement ba loolu indi ay problème ba collectif bi réunir c'est-à-dire ñii fi nekk ñëpp ci problème yu sew sewaan yooyu la ñu xamante ba forme collectif li tax nag ñuy interpeller ba def communiqué mooy impunité bi am ci dëkk bi nit ki day dóor def lu ko neex ñu may ko non-lieu wala may ko liberté provisoire mu génn dëkk bi dem ñun li ñuy bañ mooy que ce cas-là soit un cas qui soit pris à la légère parce que ces quarante millions dont on parle c'est peu dañu wax le minimum on parle de centaines de millions parce que ñi nga xam ne déclaré wuñu ñoo ëpp fuuf. ñi nga xam ne ñu ngi taxaw constitué mu mat quarante léegi nag lenn dafa am jël nañ suñu avocat loolu la ñu yoon may def nañu bii communiquer te certes am nañu justice on fait confiance en cette justice la mais il faut savoir que dañu bëgg Sénégal yëpp xam ni ces genre de cas là il faut mu dàq fi ñun on attend à on s'attend à ce que ce cas-là soit soit réglé conformément à la loi ku ci nekk soit jot xaalisam bu ñu mënul jot seen xaalis ñu appliquer li ci yoon wax parce que y a plus de quinze plaintes yu nekk ci noddam loolu benn la balaa ngeen di wax wax ak Arouna mais lu wax euh, wax amu ci njëriñ parce que ay papier ñoo fi ne donc lu ñu wax ñun suñ ñun ay wax ñun doxuñu ci loolu ay papier avant avant muy àgg justice pas moins d'une fois ay nit yóbbu nañ ko ci yoon bu ñu demee négocier wàcc ñu lu ñuy def ni gënaluñu mais doo jël ay père de famille ñoo xam ne dañu yor seen liggéey wala yor seeni société di ci liggéey nga jël seen xaalis ay millions et des millions daw lekk ko comme ça di ñu di leen dawloo mënul nekk cette femme là ça fait un an muy daw ci ginnaaw Arona ça suffit non non c'est-à-dire man de ni ma ko gisee ni ma gisee cas bi te gisee wu ko woon noonu avant ndax man bokk naa ci ñi nga xam ni vraiment bi mu nee ci problème taxaw naa def naa lu ma mën pour jàppale ko ci caméra laay wax li may wax du ma ko nëbb jaralu ma fen mais li ma gis nii moo ko tey. toogee ah. ak moom am na reconnaissance de dette te effectivement am man de bindal reconnaissance de dette. yi nag am na ñoom te ne c'est daté pour euh, pour quand mars xaw ma mars mille vingt et un voilà jàpp ngeen ni am na ki nga xam ne moo ci ginnaaw ah, ku koy ku làqu ku làqu ku làqu ci ginnaawam rek ñàkk làqu ci ginnaawam ñun loolu taxu noo jóg. li ñu tax jóg mooy li muy def ñun xam nañ ne am na fu mu ko teg. ndax nit yow mii tey di wax boo encaissé woon un million jàmbur lekk ko doo nelaw waaw wala déet mais nga encaissé ay millions et des millions di circuler nu la neex ci dëkk bi dafa am foo ko teg te effectivement ñun selon le déroulement des faits la chose ni ñu ko jëlee en charge sérieux bi ci waroon am en tant que légaliste ñun gisuñu loolu et notre avocat l'a souligné ñun gisuñu loolu je me di que y a une volonté de régler la chose le plus le plus le plus amicalement possible wala le le voilà le le le la moins dure possible pour lui. maintenant nag loolu avantage am la mais du suñu avantage parce que ñun dañuy liggéey. société am doxulul non mu ne nii kay xam nga ne. doxatul y' a pas de bien et ça aussi c' est une irrégularité en tant que société de vente de voiture amul benn oto bu ñu mos a ci turam te si boo duggee tey boo duggee LinkedIn tapé EasyCar tu vois le nombre de voitures qu'il a qu'il qu'il vend tu vois plein de trucs les publications. à travers seen point de presse yi ginnaaw leen enquêteurs yi da ngeen di woo directement. ah ah de la justice. faut pas dire que ndax bu ñu wóoluwul loon enquêteur du ñu fa dem di di di di porter plainte. mais dañuy mettre en garde pour ëllëg ñu ne waxoon nañ ko c'est ça c'est-à-dire ëllëg bu dara amee ñu ne ah ñun kat lii waxoon nañ ko bu nekkee nag tamit confiance bi ñu am ci justice bi confiance boobu kat c'est avéré dinañ jël su mercredi la la le procès bi mais dinañ ko jël en charge ni mu waree su boobaa ñun dinañ ci xam dara te su boobaa comme suivi suivi de nit ñi nañ xam ne ah nit ki kat def na lii def na lii def na lii teg nañ ko daan bi bi bi bi jeex na